marche Aïda Sakho tey jii ban message nga am pour sénégalais yëpp ñi nekk fii tey. waaw kontaan rek kontaan rek waaw lii mooy wan ne Macky Sall le Sénégal bëggatuñu ko nit nag yàlla day nangu dogal il faut nga nangu dogal parce que dañu nekk si réew moo xam ne réew mu metti la parce dañu nekk koo xam ne muy Macky Sall euh, jël na droit nit ñi euh, muy si lépp nag sénégalais nee na ñoo ko faloon pour un mandat de mu toog mu ne cinq ans lay toog. mu toog ba mu neex ko mu ne day dóoraat yeneen deux ans yi bàyyi ko mu jàll mais ñun ñoo ne ma ko faral nañ ko mu neex mais léegi bàyyi nañ ko parce que liggéeyul loon askan bi Sénégal sonn nañu le pays va mal fii ku nga gis tey nga xam ne lépp dëgg la lépp dëgg la lépp wane nañ ko fii tey wan million marché ñëw na ah, bind nañ suñu programme voilà one million marche for Sénégal donc voilà ñu continuons ñu continuons dañu def suñu programme ñu bind yëpp mais dañ ñëw ñu ne carrément ne préfet nee na numéro international bu ñu dugal moo baaxul moo tax sunu marché le 29 décembre bi dootul mënati am mais ba tey yoon yomul si benn parce que xam na ne ñun ñoom si kawam euh, léegi nag waxtaan nañu sunu biir trouvé nañu sunu date le 4 jan le 4 janvier nee nañ si la ñuy def manifestation bi te manifestation bi dañu bugg Sénégalais yëpp ñu ñëw tous les partis sont invités ñëpp dañu ñëw pour wane Macky Sall le pays ne l'appartient pas moom kese moomu réew mi le pays appartient a la population sénégalaise loolu il faut mu bàyyi si xel dañ ko voté loon léegi sénégalais nee nañ bëggatuñ ko affaire foofu la. merci merci Aïda Sakho nous allons à l'intérieur du